tey nag euh, ñoo am invité ki nga xamante ni moom mooy euh, Cheikh bu Diop di ab njóobeen di euh, porte parole ki nga xamante ni moom mooy gëm sa bopp di parti bi nga xamante ni Bougane Gueye Dany moom moo ko jiite di journaliste également di liggéey ci wàllu communication balaa ñuy sori ci waxtaan bi dañu koy bàyyi mu niroog mbokk internet yu Dakarnet yi ñu ñëw ci yaatal gi. maa ngi lay nuyu di la fay di la sant ci invitation bi di la remercier bu baax a baax. Mhm. alors euh, Cheikh Saad bu xam ngeen ni ay bés yu yee ñu paase sax ñu ngi doon am ay euh, xew-xew yi fi doon am ci bañ ñu euh, déroulé li nga xamante ni ñu ngi koy faral di wooy naan agenda bi nga xamante ni mooy LGBT alors laaj bi mooy objectif bi nga xamante ni occidentaux yi bëgg nañ ko ngir jéem a lawal seen i agenda boobu noonu jëm ci wàllu ngóor jigéen ak yeneen ni ci doon est-ce que jàpp nga ni ñu ngi ci yoonu à réussir ko wala jegeguñ ko. waaw maa ngi lay sant ci question bi di wax ni que. yaakaar naa mondialisation bi ak tubaab bi seen objectif mooy légaliser homosexualité dans tous les pays du monde waaye dañoo juum bi ñu duggee Sénégal ba kuréel boobu ñuy wax ànd sàmb jikko yi jóg taxaw ma leen di gërëm di leen félicité ci seen liggéey bu rafet bi ñu nekkee di wax nag gëm sa bopp moom ànd sàmb jikko yi lépp lu ñu jóg gëm sa bopp dina ci ànd ak ñoom président Bougane Gueye Dany dina leen ci jàppale ñun dinañ leen ci wuy si ci fépp fu ñu mënta woote agenda boobu nag lu tax du mën a dugg Sénégal mooy senegal réew la boo xam ni li ko liy fondement bi mooy diine bi nga xam ni suñu mag ñu baax yi moom lañ fi bàyyi euh, ku gis taxawaayu Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké xalif général kullu murit yàlla na fi yàgg te ku gis taxawaayu sëñ babakar si Mansour yàlla na fi yàgg lool te wër jiite tarixa Tijaan doon xalifa Seydi Hadji Malick Sy radiallahu taala ak taxawaayu yeneen kilifa diine yi taxawaayu ustaas yi hmm. nga xam ni ngóor jigéen du mës a am Sénégal te xeex bi nga xam ni ànd sàmm jikko yi jóg nañ ci muy criminalisation de l'homosexualité xeex boobu ànd sàmm jikko yi nañ ci am ndam ndax diine boobu daf ñuy tere mbirum góor jigéen muy diine katolik nag di diine musulman alors kon mun nañu wax rek ni que sans hésiter xeex bi nga xam ni sénégalais jóg nañ ci wuy ci waa ànd sàmm jikko yi xeex boobu ndamu Sénégal lay nekk mbirum góor jigéen du fi am tey du fi am ëllëg. Mm. la position du président Bougane Gueye Dany mmh. la position de Gëm sa bopp rest des positions non négociables. Mmh. alors euh, ba léegi duñu duñ ci génn ah, mais li tax xaw a jaaxal ñu bari sax ah, mooy mbir euh, mbiri euh, UNESCO xam nga ni dafa bëgg am benn programme boo xam ne dafa ko bëgg a imposer programme boo xamante ni dañ ci jàngale mbiri LGBT ci suñu rakk yeeg suñu suñu doom yeeg suñu jarbaat yi. Mm-hmm. yàggul dara ñu gis benn sujet boo xamante ni daf doon wax ci mbir moomu. Mm-hmm. pour yow coïncidence la wala juste dafa tombé wala juste naka naka nga ko jàngatee déjà. bon UNESCO ko mu jóg pour njàngat boobu ñu dugal ko ci ñu njàng Sénégal yaakaar naa ni Sénégal am nañu fayda boo xam ni njàng boobu du fi dugg tey du fi dugg ëllëg et que bac blanc bi fi am ba sujet boobu génn c'est vraiment regrettable les responsables doivent être sanctionnés ils ont déjà été sanctionnés je crois. Mhm. professeur Balde dañu ko dañu ko dañu ko dañu ko dañu ko dàq daal maanaam dañu ko jëlee ci bërëb bu mu nekkoon. waaw ñun dañuy lu jëlee boobu ñu ko fa jëlee te di wax ña nga xam ni ñoo jël décision boobu muy les autorités de l'éducation nationale na ñu continuer dans cette démarche ndax loolu la askanu Sénégal bëgg. Mhm. te li askanu Sénégal bëgg loolu moo fi am UNESCO nag bu nekkee ndimbal bi ñuy ndimbal. Mhm. moo tax ñu jàpp ni mën nañ ñu xoj ba daf loo ñu loo xam ni àndul ak suñu aada àndul ak suñu diine àndul ak suñu cosaan nañu xam ni dóor nañu seen loxo ci ëkk ndax loolu Sénégal kenn du ko fi nangu tey kenn du ko fi nangu ëllëg te xeex bi lu mu jar sénégalais yi ak waa gëm sa bopp ànd ak waa ànd sàmb jikko yi dinañ ci ànd pour loolu bañ fee nekk loo xam ni daf fiy law UNESCO nag ñoom lobby yooyu buñ leen euh, infiltré yàgg na du tey ba leen di financer sax muy lu ñu xam mais ngëm-ngëmu sénégalais yi diine senegal moo tax loolu du mës a nekk ndam fii ci réew mi kon jàpp leen rek ni mbirum góor jigéen moom comme ni ma koy waxee du fi am tey du fi am ëllëg et bi képp kuy doomu senegal di nga jóg xeex ko quel que soit nag ñi jël combat bi di ko porter. Hmm. mais li li jaaxal ñu bëree bëri mooy baatu retiré bi euh, ministre euh, ministre bi wax ministre bi nee na euh, maanaam loolu dossier boobu noonu rawatina texte boobu noonu retiré nañ ko depuis deux mille dix neuf baatu retiré ci olof mooy seppi. Hmm. lu ñu seppi kon maanaam ma nga fa woon est-ce que sax waroon na fa nekk déjà. waaw waru faw nekk. et puis retiré boobu comme ni nga ko waxee. dañ ko warul sax utiliser parce que dafa warul woon nekk ba ñu koy seppi ndax ñoom xam nañu lan mooy sociologie dëkk bi lan mooy valeur yi sénégalais gëm lan mooy valeur yi nga xam ni islam bi nga xam ni ñun moom lañu bokk muy branche sunnite bokk ci école imam Malik ak njàngal ak yar ba ci jeexintalu mag ñi nga xam ni ñoo fi nekkoon yaakaar naa waruñu def moins que mag yi fi jóge woon Sénégal war nañ ko sàmb ba nga xam ni Serigne Touba bu del see jamono kontaan war nañ ko sàmm ba nga xam ni Seydi Hadji Malick bu del see jamono kontaan war nañ ko sàmm ba nga xam ni maam Ablaye Niass bu del jamono kontaan Seydina Limaamu bu del see jamono kontaan kon loolu dañ ko ci waru loon boole ba koy seppi et yaakaar naa ñoom mi ñuy dem ba wax dañ ko retiré mooy reconnaître nañ ni ko erreur la waaye njuumteel boobu na fi yem ndax bu nekkee dafa amaat njuumteel bu ma noonu askanu Sénégal duñ leen ko baal. Hmm. Eh, alors mais olof dafay faral wax tamit ah, naan ku lay abali gët moo lay wax fa ngay xoolee président Macky Sall yàggul dara. Eh, bi mu toogee ci tubaab bi mu ngi doon wax waxu nañu annulé dette beeg ak na ñu eh, yokk maanaam bor bi ñu war a lebal nañ leen lebalaat est-ce ku lay lebal di nga di ko mën a gàntal. waaw ku lay lebal di nga ko mën a gàntal ndax leb boobu du njëriñu Sénégal waaye seen njëriñ la ñoom parce que leb bi boo seetloo tey dette bi dem na ba xoj Sénégal pour son développement économique looloo tax président de damoon France di ñaan pour ñu annuler dette bi waaye dette boobu ñun du suñu njëriñ ñoom seen njëriñ la ndax dette boobu en contrepartie moo tax ñu ñuy mën a nax di ñëw di signer ay contrat de pêche yoo xam ni tekkiwul dara amalul benn njëriñ réewu Sénégal lu dul politiciens yi nga xam ni ñoo ko jiite alors xaalisu Europe Sénégal soxlaw ko pour développer ndax bu nekkoon xaalisu Europe mooy génne Sénégal ci ndóol ndóol bi kon Sénégal génn ci ndóol ndool bi bu yàgg mais xaalis boobu gisuñu njëriñ bi li tax nag gisuñu njëriñ bi xëy na nga ne ma suñu politiciens yi dañuy leb xaalis bi ba pare ñoom ñu dellu lekk ko ndax duñ ko delloo ci askan bi ndax buñ ko doon delloo ci askan bi tey Sénégal romb na fii mu nekk ñoom ak seeni xaalis bañ ñuy lebal ñoom ak lépp lu ñu mën a indil bu nekkee dañ ñu war a imposer mbirum góor jigéen Sénégal bëgg ko tey bëgg ko suba du ko nangu tey du ko nangu suba nañu téye seen alal sénégalais yi dee xiif moo leen gënal. alors ñu gën ñu gën a avancer euh, un peu xam nga président Macky Sall nag gis nga depuis le 27 ba léegi nii mi ngi di def benn tournée tournée di wër dëkk beeg yooyu ñenn ñi jàpp ni tournée économie la ñenn ñi jàpp ni tournée la boo xamante ni pour wàllu politique kese. Hmm. alors yow naka nga gisee déjà tournée boobu noonu. waaw mooy li may wax nit ñi Macky Sall dafa am ñaari kasket benn bi mooy président de la république la hmm. benn bi mooy président de partie la parti bu tudd APR. ba pare ci biir APR boobu APR bokk ci beneen kuréel bu tudd Bennoo Bokk Yaakaar kon président Macky Sall bu nekkee dafay jóg di wax tournée économique may fàttelu internautes yi ni ko président Macky Sall daf na fi façon tournée bu ne ba ci conseil des ministres décentralisé hmm. ëtt yi. ah mais bii bii bii jot na inauguré ñaar ba ñetti hôpital loolu tamit en fait. waaw mais hôpitaux yooyu mu inauguré journalistes yooyu. ma leen di jaale waa leeral bi ñu faatoo accident bi am na ñoo xam ni deewuñu mais dañ ci jëlee ay gaañu gaañu yu metti mais dañu romb hôpitaux yooyu ñu inauguré pour évacuer leen Dakar. mais est-ce que nekkul médecin yi ñoom ñun lañu ñu dañu installé gul médecin yi peut-être équipement bi mu ngi fa mais way docteur yi ñoom ñoo fa ñëwagul. waa léegi liggéey bi léegi way docteur bu ñu fa nekkul looy inauguré parce que li ñu inauguré mooy loo xam ni bu ñu fa jógee suba dañuy tàmbali liggéey. Mm-hmm. wala gannaaw suba. waaye waaye docteurs yi nekkuñu fa kon yow li nga inauguré amul njëriñ cest diir président Macky dafa nekk ci tournée politique boo xam ni dafa bëgg nax sénégalais yi day saytu boppam càmbar boppam ndax élection locale yi am na doole pour bokk ci naam wala déet bu saytoo boppam ba wóolu boppam élection yi dina am janvier 2022 bu saytoo boppam xam ni sénégalais yi war nañ ko ginnaaw day dàqaat élection yi. kon tournée économique bi leneen lalu ko lu dul politik ak naxe mbaay alors euh, gis nañ tamit ni euh, élection locale comme ni ñu ko waxee at bii di ñëw la maanaam ñëw na ba pare daanaka gëm sa bopp fan la ci toll gëm sa bopp fim ci toll mooy bés bu nekk ñi ngi massifié wu bés bu nekk nit ñaa ngi ñëw di ñu fekk si waaye ñun li ñu gënaloon mooy élection locale yi mooy premier tour élection deux mille vingt quatre yi nga xam ni président Macky Sall du ci bokk ndax mandaam ci lay jeex. mais premier tour boobu nag. Ah, vas-y vas bu ñu ko buggee gagné. Mhm. foog ñu ànd doon benn mooy demarche consensuelle bi nga xam ni président Bougane Gueye Dany moom la prôné moom la waa gëm sa bopp di woote moom la waa gëm sa bopp prôné demarche consensuelle boobu buñ ci àndee di xàccandoo di dóorandoo élection locale yi ci gox gox maanaam élection gox goxaat yi. opposition bi kujje bi mun nañ gagné lépp. Mhm. alors président Bougane Gueye Dany loolu lay dox guddi loolu lay dox bëccëg loolu lay woo kujje bi yépp mhm. waaye tamit ñi ngi taxaw ndax en politique rien n'est mhm. bu nekkee booloo boobu doon benn mënuta ne ce que je refuse d'accepter ce que le président Bougane Gueye Dany refuse d'accepter ce que gëm sa bopp refuse d'accepter parce que dañu bëgg cadre unitaire boo xam ni. ñooy ànd damandoo ci élection locale yi pour mm. gagner ko mm. ndax bu ñu ko gañee ci lañ fi mën a jëlee ki nga xam ni Macky Sall moom lay présenter comme candidat en 2024 mm. kon élection locale yi dañu nekk d'une importance capitale mm-hmm. parce que bu ngeen seetloo 2012 ba léegi réew mi dafay gën a dellu ginnaaw bu ñu bëggee loolu dakk foog ñu jëlee fii ñu fi nekk démocratiquement loolu mooy xalaat ak gis-gisu gëm sa bopp te pour ñu jëlee leen fi démocratiquement foog ñu am un cadre unitaire de l'opposition pour aller ensemble dans ces élections locales gagner gox-goxaat yi gagner li nga xam ni moo tere nelaw Macky Sall muy la capitale Dakar. Mhm. Euh, ci ci Dakar boobu noonu Khalifa Sall euh, moom euh, ki nga xamante ni mooy Barthélémy Diaz moom dafa bëgg nekk maire fi nga xamante ni moom mooy Ndakaaru mhm. nan nga gisee te xalt ki nga xamante ne mooy Barthélemy Dias d'ailleurs moom dafay wax sax ni yéen opposition bi na ngeen fexe yéen ñëpp ngeen boole parce que mbir mi raw gàddu la. Mhm. te xam nga raw gàddu ku nekk bu demee sa bopp day compliqué. Mhm. déjà naka euh, ki nga xamante ni moom mooy Barthélemy Dias est-ce que tey boo leen doon ànd ak waa Khalifa Sall taxawu Ndakaar yi. est-ce que mhm. d'accord ngeen ànd ak Barthélemy Dias mu jiite Ndakaar yéen waa gëm sa bopp. waaw xam nga ñun suñu président. boobu Barthélemy Dias waxagul moo njëkk a proposé démarche consensuelle mm-hmm. Barthélemy Dias nag am na droit amay ay ambition boppam mais damaa jàpp rek ni comme que am nañu kuréel bu ñuy boole ñun ñëpp ñu mun fa toog waxtaanee ko mm-hmm. li mu def nii dama ko jàppee échappée solitaire te échappée solitaire boobu mm-hmm. du loo xam ni day yokk ndëgërlaayu kujje gi da koy wàññi. ndax tey bu defee loolu keneen def loolu keneen def loolu kon day am plusieurs candidatures te loolu day affaiblir day fragiliser opposition bi kon ce n'est même pas une bonne stratégie alors j'interpelle l'ensemble des leaders de l'opposition à travailler dans un cadre unitaire pour remporter massivement les élections locales de 2022 maintenant xalifa Sall moom kilifa la. kenn dégg ko mu wax ci lenn parce que xam na jamono fu mu toll. ak xam na lan la réew mi laaj pour gagner élection locale yi may fàttali gagné ne élection locale benn yoon gañe ne ko ñaari yoon te bi mu koy gagné Ablaye Wade dafi nekk yore doole bu rëy mu boole leen ñoom ñëpp dóor leen jël bu amul fenn. alors kooku xam na naka la ñuy gagné élection moo tax kenn déggu ko mi ngi ne Thiel. ndax c'est un homme sage et je serais pas surpris Khalifa Sall génn suba lii may wax nii mu wax ko proposer une démarche consensuelle pour gagner massivement l'ensemble des communes du Sénégal alors ba léegi ah mbir yi eh, maître El Hadj Diouf maître El Hadj nee na ci mbiri Ousmane Sonko bi ak ñeneen ñi nga xamante ni eh, ak Adji Sarr moom nee na dafay eh, porter plainte Ousmane Sonko di ko toppee haute trahison fële ci yi loolu noo ko gisee. Euh, man dama jomb di tontu maître El Hadj Diouf ci plateau télé. avocat la de bu mag. waaw mbirum avocat di liggéeyam loolu bañalu ko mais ci wàllum politique man jomb naa toog ci plateau télé di ko tontu ndax bu ma ko tontoo président Bougane Gueye Dany dana ma xeeb. bu ma ko tontoo waa gëm sa bopp danañ ma xeeb ndax li muy wax amalul njëriñ Sénégal président Ousmane ko nga bëgg ko nga bañ ko. njàmbarteem ak ñamu àndal ci xeex bi du lu ñuy laam-laamee maintenant que nguur gi jóg di comploter pour faagaagal ko loolu ci politique lañ ko fekk waaye nguur gi tamit nañu jàpp ni am na ay doomu réew mi yoo xam ni bokkuñu Pastef bokkuñu jàppalewuñu Ousmane Sonko waaye au nom du principe ñoom ñëpp dinañ jóg pour xeex pour li nga xam ni moom la ñu bugg def pour faagaagal Ousmane Sonko kenn du ko nangu tey kenn du ko nangu ëllëg gëm sa bopp ñoo ci njëkkee événement mars yi passé gis ngeen taxawaay bi nga xam ni président Bougane Gueye Dany moom la ci am taxawaayam boobu moom yemul ci loolu dafa jël waa gëm sa bopp dugal leen ci yemul ci loolu mu jël groupe de presse am des médias ko à la disposition du peuple sénégalais mettre ko à la disposition de l'opposition pour ñu continuer di combattre li nga xam ni jàpp nañ ñi injustice la li nga xam ni jàpp nañ ni complot la. Mhm. Euh, mais mais en fait foofu bëggoon bëggoon naa ñu avance mais dañ fi taxaw lu tax mu war a jël groupe de presse am di ko teg ci euh, côté opposition bi est-ce nekkul parce que ñoom ay journalistes lañ. dañoo war a def lekk li nga xamante ne rek mooy seen liggéey est-ce que. loxo seen TV ak euh, maanaam des médias si boppam est-ce que gisoon lu cee dugg ba mu bëri. waaw mais léegi ci woon ba mu bëri. léegi xam nga tey ci démocratie majeure yi. Mhm. groupe de presse yi dañuy am position politique am na États-Unis am na France am na Angleterre waaw may ma rek may yegg si mhm. alors ñun bu nekkee dafa am ay groupe de presse Sénégal duma tudd seen tur ñu ànd ak nguur gi ngeen xam ko am ay journalistes yu ànd ak nguur gi pour lan président am Gueye Dany mi moom alalam du wax ni que ubbi leen antenne yi pour opposition bi mën a ñëw wax li ñu xalaat ubbi leen antenne yi pour réewu Sénégal ñi nga xam ni d'accord ñoo président Macky Sall mën a ñëw wax li ñu xalaat yaakaar naa loolu amul crime amul benn tâche par rapport au bon fonctionnement du groupe de presse qui est des médias sinon que c'est groupe de presse engagé exclusivement auprès des population président Macky Sall ak ñi mu àndal fii ak bàyyiwu ñu di fexel ku jégi fexel nañu Karim Wade fexel nañu Khalifa Sall tey ñi ngi ci fexeel Ousmane ko mais xanaa nag ñun ay gor lañu boo ñu jamee direct mooy génn su ñaram du ñu toog di seetaan président Bougane Gueye Dany ak waa gën sa bopp loolu moo leen naqari ba ci combat boobu ñu engagé wu ci pare ci woon lu ne alors yaakaar naa ni pour réew mi am jàmm foog ñu respectante président Macky Sall mooy président mm. mais na xam ni ñi bokk ci kuje gi ay nawlem lañu bu yaakaaree ni mun na comploter contre tout le monde ñun ñi toog di seetaan day nax boppam le complot doit cesser en démocratie d'accord mhm. en démocratie mhm. complot du lenn loo xam ni dañ nit war na ko rafetlu da da da d' accord bëggoon nañu bëggoon nañu waxtaan si si mbir yi boo jinnee parce que ñu naan ay kaso bi kaso hmm. euh, euh, haute sécurité la haute sécurité la ba pare mu rëcci ñu dàq directeur ba est ce que jàpp nga ne dàq ay directeur mooy solution bi ñu daaneele foofu. booy jinne moom hmm. euh, li ma ci jaaxal mooy ndax am na implication en interne hmm. wala am na soutien en interne. loolu mooy laaj bi ñu war a laaj mooy benn ñaareel bi nag bu nekkee suñu kaso yi booy jinne moom daf ko def comme hôtel Radisson ak hôtel Pullman day dugg di génn te kenn du ko wax mm-hmm. dara mm-hmm. war nañu seetaat suñu kaso yi bi leen bàyyi di leen wax prison de haute sécurité ndax prison de haute sécurité bu ñu booy jinne ñaata évasion la def presque onze ans mais onze évasion mooy ni que y problème nañ ko gëstu càmbar ko situer les responsabilités dans une enquête boo xam ni du am par parloo ñu situer responsabilité yi ñi ñu war a daan ñu daan leen lii bañ fi amati. ba pare tamit mënoo téye doomu aadama ci kaso bi. longue détention longue détention mënul am liberté provisoire yooyu yëpp lu ñu war a seetaat la mais évasion bi moom c'est à dénoncer te képp koo xam ni taq na ci yoon dafa war a dal sa kaw parce que administration pénitentiaire quand même. c'est une administration très sérieuse waruñu ko jàpp di ko caaxaane nii ba booy jinne mais booy jinne en fin de compte moom foo la def affaire bi bu ko neexee dugg bu ko neexee génn mais quand ay soo leen bëggee ma ñëw mais su ma ñëwee da ngeen may jugé. loolu waaw alors euh, kontaan nañ bu bu baax a baax lan lan ngay daanelee. waaw li may daanelee moom maa la maa ngi lay gërëm mhm. maa ngi lay sant. di la wax ni que lii nga jublu nii yàlla na la ci yàlla jàppale bi jaahi yaa rasulullah sallallahu alayhi wa salam ndaw nga yaa ngi liggéey yaa ngi organiser émission bu am solo te may ñaan émission bi yàlla na gën a jëm kanam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi lay remercier ci invitation bi di la sant di la gërëm. Mm-hmm. merci beaucoup ça a été plaisir de vous servir Ouzin ngeen doon àndal ci seen émission bi nga xamante ni moo tudd gise ak tey ñu dalaloon fii porte-parole lu gëm sa bopp seex Cheikh bi Diop li tax ma koy tooñ naan njóobeen bi sama sama kàlla li mu fi taxa yëpp xam naa xiifoon koy rey donc kontaan nañ daal ci topp bi ngeen ñuy topp di leen jox rendez-vous ci beneen émission beneen gise ak